ci yéenekaay yi ci yéenekaay yi jox leen ma xel yi te ngeen déglu maag noppi gar mi ñu li ci yéenekaay yi ñu daal koy tàmbalee ak dialogue politique bi nga xamal ne njiit réew mi daal dafa mel ne ku jëgi dañ koo naj ngir mu mën a amal loolu 24 heures di xamal ne nañu tey ci mbir yooyu ndax boo wattuwul ab testale rek ci ku jëkk Sénégal yi ndax am na yeneen dogal yoo xam ne war nañ koo jël ci kanam la tribune yéenekaay di yéenekaay remédia yi di xamal ne jamono ji dafa mel ne dafa deltu ginnaaw enquête yéen kaay moom daal di enquête jëmale ci li nga xam ne moo di élection locale yi ñu dëgmal di ñu xamal ne boo watuwul yooyee élection du am ndax dañoo jàpp ne dafa bëri yu ca des rawatina lépp la xam war nañ koo càmbar ci mbir mu nu mel le soleil yéen kaay ak les échos moom daal di xëy ci mbirum Ababacar Sadikh Bèye moom mi nga xam ne moo jiite port autonome bu Dakar yéen kaay bi di ñu xamal ne ku wër jàmbar bay si ci moom mën ngaa taxaw ndax ab liggéeyam bu am solo boo xam ne def na ko ca port ba yéen kaay bi di le soleil di ñu xamal ne jot na ci bataaxal bu koy firndee ndax liggéeyam bu am solo boobee am na ci ay bénéfice yu bëri yoo xam borom bu seexantay mi nga xam ne moo fi nekkoon lu daan def ci ñetti at def na ko ci benn at réew mi quotidien moom daal di dikkat li nga xam ne moo di accident yi nga xam ne mi ngi am ci réewum Sénégal yéenekaay bi diñu xamal ne mbir yi mi ngi gën di wóoy ndax am na benn accident boo xam ne am na foofa ca Tataguine ba am na ku ca ñàkk bakkanam ak gi nga xam ne tamit benn oto moo fa yenn Jakarta xale jigéen bi nga xam ginnaaw ñàkk na bakkanam li ki yoroon moto bi mi ngi nekk ci diggante dund